aleykum asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen mbokki àdduna laa njëkk a wax tekki waa Afrique tekki Sénégal ah, di wax ci kàddu euh, Baye Mor Diakhaté Mor Diakhaté sax laay wax ndax doomam baay moor Diakhaté la ñuy waxtaane kon nag ki maam Mor Diakhaté lañ koy wax ah, Baye Mor Diakhaté mi ngi nuyu Serigne Mountakha di ko ñaanal yàlla aw fanam gudd te wér te xam ne nag mbokk moo ko la sëñ bu ñëw na fii mu wax ko ko nee na ko mbokk mu ko jege la di sant sëriñ Abibu moom mu nga xam ne moo jiite Touba ca kanam bi nga xam daanaka moo waral ndaje mi ndaje mi ki ko waral di maam Mor Jaxate Baye Mor Jaxate mi nga xam ne yàlla moom na ci bakkanam mook euh, sëñ naa Si la may dëkk fii ci wetu tokkar bi ñii ngi leen di ñaanal yàlla xaaree leen àjjana suuf sedd guy seen kaw te yàlla taasu seen barke barke sëriñ Touba Baye moo Jaxate nag nee mi ngi gërëm ñëpp bu dee ci quartier bi mi ngi gërëm Baye Sow boroom kër yi kenn ku ne ma nga la fekk fekk sa kër ka fay njit ma nga lay xamal ma nga lay sant di la gërëm ba ca gone ga fa mujj a judd nee na bàyyiwut kenn ndax nee na xam ne ne moom mënta toog fii di wax ah mënta toog fii di wax ah ndax koy xool bu jeex rek la koy dolli ba tax moo ma tax moo ma si di wax loo kàddu yii kàddu yi nag lott naa ci wax ko lool moom lott naa ci wax ko ni ma ko bëggoon a wax loo xam naa mënu ma ko waxee di sant Baye Modou mbay mii ak El Sëñ Fallou Ba mii sa ñoom ak mboolem waa bi rek bàyyiwut kenn. bàyyiwut waa Touba bàyyiwut kenn mii ngi leen di sant leen gërëm Baye Mor Jaxate nag moom soo wax ci moom lu ñu si wax ci moom doyul ndax monument bi tey ji moom la ñuy inauguré nii tuddee ko ko ponu yi fa nekkoon moom moo fi samp ponu ya kon nga xam kooku moom daa xàllaaw yoonam ki nga xam ne mooy wasilaam di Serigne Moustapha moom sëñ Abdou Lahad ci boppam keroog ba ñu xar xaroom ba dañu mën kii ñeenaa ko moo sañu demee nii en tant que doomi Serigne Abdou Lahad di sëtu Serigne Touba kooku kon kooku kon am na leneen. yoon wii keroog bi nga xamee ne mi ngi wàcc liggéey booba kenn mënu fee jaar nun ñi ko ci xëy fii nga jaar ba aw nee war doogi tëli ba doo am fenn foo jaar waaye bañ ko daataan saraxal booba yoon wi mel na ni tëli te daana wax naan yoon wi daana leen ko defaral kon nag defaral nañu ko moom fii am na kilifa yi ko toogoon ko xam nee na ci moom laa gisee koo xam ne dem na àjjana te faatuwul kon nag Baye Mor Jaxate yàlla nañu yàlla taas ci barke barke Serigne Touba ndax xam naa nag du mën a gudd ndax xam naa ne euh, ñi war a wax bari nañ te liñ ci yéene ci moom it xaju ci suñu xaju xaju suñu xol kon nag Iba maa ngi lay jox kàddu gi nga jox ko Baye Mour Mboy kon nga saanu ci ay di sant Cheikh Moustapha Abdou Lahad mi nga xam ne moo di wasilaam ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nañ ko diiru bi xew bi amee léegi di sant xarit moroomam yi nga xam ni yëpp rafet lañ seen taxawaay di leen di eh, di gàtt rek nag di leen xamal ni jëmm jooju ñuy wax sa Baye Modou Diakhaté am naa lu ma ci mën a wax ndax ànd nañ ba tey ci ma di liggéeyal sëñ Tuubaa moom day amoon na ak jagleel ndax jagleel weesuwul fépp fu ñuy defee lu baax nga fexe ba dugal fa sa loxo ndax moom bu bu Tuubaa ca kanam wootee ma nga ca bu Makaarimul Axlaaq sëñ Abdou Karim moom sëñ lu wootee ma nga ca biir kuréel Nooru Daare nii ma nga ci biir soppe Cheikh Ibrahima Fall mi ngi ci biir daayatul abraar bi nga xam ni ñooy seetal kër Serigne Touba kenn mënu ko ca mi ngi ci biir bon nag dañuy ñaan rek suñ borom taaf na ci barkeem ndax demin wooyu mu dem day si ni ko Cheikh moomu doon taxaa waxee shahid la bon atte saabata rasuli la am bon nag dañuy ñaan rek suñ borom taaf na ci barkeem bu loolu weesoo dañuy ñaanal ay waajurum suñ borom jox leen xolu muñ waaye nag day nuru lu metti ci kaw waaye nii ñu ko waxee xam ngeen nii ak cant rek la ndax képp koo xam ne kenn ku ne fii ci di taalibe bu sañoon dana nekk ci dooru sëñ Tuubaa bi waaram yi ba génn àdduna bon salli ala sayyidina Muhammad sallam li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp mu def ko lu kaw njortam moom mboolem njaboot sëñ Tuubaa gépp buñ foobee nuyoo boobu teg ci loxoom mu jàll ñu ko sëñ Habibu nga xam ne moo jiite Touba ci kanam ak sëriñ Moustapha moom Cheikh Abdoul Ahad waaye ñi koy siyaare mboolem julli ñëpp gannaaw loolu ñu ngi e, sant baax ci jaraay bi ñu ne tey muy jaraay boo xam ne sos lu baax sos lu baax nag yonent bi sallallahu taala wa sallam dafa waxoon ne képp ku sos aw yoon ba lu baax ba nit ñëw roy la ca sa tiyaaba dañ buñ ca bu doon juróom fukk juróom-ñeent ya yaa ko moom kon moom mii nga xam ne xale la te sunu borom subhanahu wa taala dañuy ne xale moom ñetti rek ko sopp mooy sunu borom da ko bëgg lislaam da ko bëgg seetaan da ko bëgg moom nag waxtu mën nañu wax ne dundam gépp da ko teg ci liggéey sëriñ Tuubaa boobu sëñ bi xam ne fa kullu man baadar waxtu sixari ilal huda istaraha waxtu kibar képp koo xam ne gaaw nga sag ndaw jëm ci njub boo nekkee mag danga nga noppalu waaye waman tadaraka la si xat faata mina laxa wa amara law xaata képp koo xam ne eh, ndaw ndaw googi dalaa raw it ba nga mujj di rëccu li nga defoon eh, di dund waxtu ya eh, sunu borom dan la nangul sa tuub googee bu dee xale bi nga xam ne lii liggéey bi moom la ni ko Baye Modou waxee léegi lépp loo gis ci lu ci lu baax muy yoon wuñ sos muy wu jëm sëriñ bi loola ma nga ci ndax loola ñun mën nañ cee am luñ ca seere ndax ñun jaar na suñu daara risala risala man maa ko jàngal kon loolu moom mën naa ci am lu ma ci seere euh, daayira bii di Makarimal Akhlaq nekk ci koñ bi nga xam ne liggéey bi ñoom ñoo ko taxawal euh, kenn ku ne xam ne ne ci njàmbaram ba ci fédération Nour ni ba ci Al-Abrar bi Baye Modou mi jiite waaye lu ci ne am xelam euh, xelam xalaat bu rafet rek la ci dem ba ahlu café bi nga xam ne Euh, maanaam moo jub si euh, ci li ko jiitu ci la bakkanam rote yaakaar naa bi mu mujj waxtaanee ci loolu la doon waxtaana ak ñi doon waxtaan waaye dañ ci gissine ne sunu borom ci boppam du du sànq jëf yi kenn jëf lu mu baax baax rek sunu borom euh, dana fay borom. kon yàlla nañu ko sunu borom fayal te mboolem ko fi ñëwee yàlla na sunu borom say sa aaju saahir bu baatin ñoo ngi jéggul ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñoo ngi jéggul wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf mbokki bopp yi ci seen taxawaay bu am solo bi ak seen jëf ju réy ji ak sunu jur wi toog noo ngi leen di nuyu ci turu waa Touba ca kanam waaye itam di leen nuyu ci turu sëriñ Abibulaahi Mbàkke mi nga xam ne mooy kilifa ak liggéey bi waaye tamit di leen nuyu ci turu mbooleem askanu tuubaa ku fi yeboo ku ne ca liggéeyal Serigne Touba ñor la te nga amoon yéene ci liggéeyal Cheikhul Khadim di am mbégte lool ci fàttaliku gi nga xam ne yi ngeen koy fàttaliku ñoo xam ne ñenn lañ ci ñun ni mu doone ñenn ci yéen doon ay jëmm yoo xam ne itam deesu leen wooweeti seeni doomi wayjur déedéet waaye doomi dëkk bi lañ Touba mooy seen wayjur auzu billahi mina shaytaani rajim xam naa sëñ Babacar comme ni mu ko waxee mujj na xaw a daanu ndax euh, ku bàyyi xel liggéey bi dëgg-dëgg ak ni yëf yi demee nga fekkee lépp jaxasoo woon ak ñoom waxtu mel ni su amee day am loo yëg yëg-yëg boobu nag xëj na moo tax mënatu la eggali kàddu yi ñun dañ ne woon dañuy ñëw rek ànd ak moom bàyyee ko kàddu gi kon nii mu jëfee rek mooy li ne ci xolu ñëpp képp ku nekk ci tubaa ca kanam rek nii mu jëfee nii yëg-yëg boobu ngay am ci ñii nga xam ne nekkatuñu seeni doomu waajur waaye doomu dëkk bi lañ doomi Touba lañu kon nag ku yàlla dimbali ba nga jëfal sëñ tubaa lu toll nii dem ci jàmm ba mbooloo mi yëpp di la delloo njukkal loolu liñ ciy jàngate rek mooy def lu baax rek a am solo liggéeyal sëñ tubaa rek a am solo kon nag yéen ñi nga xam ne li ëpp ci jataay bi ay ndaw ngeen ngeen bàyyi xel ci ñoom doon tànk terewut nga war a bàyyi sa xel ci li mag ñi daan def ay ndaw lañ ci sayir waaye jëf nañ jëf yoo xam ne mag ñi sax jëfuñu ko su ma fàttalikoo keroog kilifa yi ñëwoon am na ci koo xam ne daf ne moom bu sañoon deme demin bu mel nii te kooku kilifa la defe naa sëñ Moustapha moo ko wax sëñ Moustapha mu sëñ Abdoulaat kon nag mu ngoog mooy sëriñam xam nga ku dem ba sa sëriñ wax kàddu yu mel noonu ci yow loolu euh, tawféex la Touba ca kanam ñëwoon doon leen rendre hommage di leen delloo njukkal tey di sàkku yi tamit ngeen leen di ñaanal ñaan gi moo ëpp solo ngeen jàpp bis boo xam ne saa su delsee rek ngeen leen ciy ñaanal bañ leen a fàtte benn yoon kon nag euh, dañoo ñëw rek ci turu tubaa ca kanam ni ko sëñ Babacar Lo waxee ñu ngi ànd ak sëñ Bara nekk ci commission sociale ak sëriñ Babacar Lo moo jiite programme bu Touba ca kanam ak seen ndongo lu xeebul lii Khadim Diouf di administrateur tubaa ci kanam naru ma woon sax jël kàddu te xam naa ne li may wax sax jubut ndax naru ma woon a wax sëñ Babacar kon xam naa sëñ bi nag ñuy defal ñaan rek ñu yemale kàddu yi foofu waaye suñu xol sedd na lool waaw ci sàkku rek ngeen leen di ñaanal fu ngeen toll tey roy ci ñoom liggéeyal sëñ Touba rek moo fi am moo moo fi ne lu fi waaye mën di def te liggéeyaloo ko perte nga kon na ñëpp maase ci fexe ci ñoom ñu ngi ziar ñëpp di jégalu ñëpp jërë ngeen jëf. waa juróom yëpp foofu lañ cosaanoo. man mii wax ak yow. Mhm. sëriñ Dawud Jaxate. Mhm. Comeeng Ndo mooy sama papa. est-ce que moom moom mhm. doon ay taalibe rekk nag. moo nu fi indi. tey ci nii mu demee ba dem. ñii hmm, bàyyi Modou Demba ba dem cocc day leen bëgg a taxaw sant nañ yàlla nag te lan beesu am na luñ ci yéene woon woon bu baax a baax bëggoon ko caa te mënuñu ko ba mu jot leen nag ba ba yeggal nu fa sant nañ ci yàlla bu baax a baax ndax lan sant yàlla mooy am jëmm ji mel noonu ba mu taxawal la fa nga waroon a taxaw te mënoo faa fa nga waroon a dem yegg te mënoo faa yegg mu yeggal la fa loolu ak cant mënu ko féete kaw bu ma ko mënee gis ak bu ma ko mënta gis lépp daal noo ngi dolli feddali sunu taalibe di dolli feddali sunu njulit di dolli feddali sunu laxasaay gone yii fi nekk te morom mante woon ak ñoom ñoom yoon bañ war a nekk ñanga ca xam naa làbbali mhm. làbbali aw fas day tax mu gën a mën a daw waaye ña nga ña nga ña bu baax a baax alhamdulilah waaw na ngeen ci nekk bu baax it nii ngeen taxawee mhm. ak ñi ngeen ko jàppee ak nii ngeen ko doxale bu leen tegg seen tànk mukk su ngeen bëggee yegg foo xëy kenn du ko foog ca dund te nun ñii nekk ci koñ bii fii kii yegg bari na ñoo xëy defoon nañ ne mënu fa àgg nun ñii di ay waajuram it bett nañu lool waaw waaye yàlla mooy cërale doomu adama loo xam ne ëpp nam xelam waaw dana ëpp njortam bu baax a baax. sant leen ma ko bu baax sëñ Muntaxa ci boppam. na ngeen ma ko santal bu baax a baax. te gërëmal ko bu baax a baax. ne ko noo ngi sant bu baax tey dolli njëb bu baax a baax tey dolli suñu talib bi bu baax a baax. ñi fi des daal bu ma sañoon. Mhm. noonu mu def ba dem ñu def na te bañ a dem te eh, jariñoo lépp. bàcc sëñ Tuubaa. amiin amiin jërëjëf santal ma sëñ bi bu baax a baax. tey ne ko moom.